ñu ci ba tey ah, paaka bi nga xam ne moom moo rendi xar mi nga bari ñoo xamante bi dañoo am xel seen xel lu ñu jàpp lu ñu jàpp mu li ñuy wax kiis yaa ngi ko mën a amee ci tabaski dégg nag waaw kiis kiis mooy dégg jàpp xam mokkal te doo fàtte loolay kiis léegi boo jëlee xar mi ñu rendi ko boo noppee jëlee sa paak bi rek fomp ba mu set. nga bind ci iqara bismi turu daal di def aaroona. iqara bismi daal def aaroona. waaw ka nga bëgg ka nga bëgg xelam neex ngay def bu dee aaroona nga def aaroona bu dee nangam sàmm nga def nangam sàmm. bu dee nangam na voilà. koo ci bëgg rek waaw. waaye foofee nga yem ci iqara bismi rek la ci des mooy àggale tur wa boo iqara bismi mhm. nga bind turu nangam paaka ba mhm. moom ngay jël. jël fourne def ci këriñ boyal ko ba mu boy nga teg ci paaka ba mu xonq nga xar mi ndox ma ma mujjee naan ci bisu tabaski ba fekk nga tàng ci am nga ci ab verre nga samp ci paaka ba mu ne ces ba fay mu naan ko ñetti góox xar xale bu tëë mokkal man mu xel mu naqari loo ko mu fàtte ko lu mu reeree du ko xam bu koy naan di xam léegi loolu kenn rek lay concerné wala. waaw waaw kenn lay concerné waaw. benn paak boobee benn dëgg la. benn paak rek a dem mu waaw noonu la waaw. mënut a jëlaat keneen. Mm-hmm. nit mënta am ñaari xel. Ah, dama la xalaat lu am solo nga laaj kay moom kay noonu la. précisé boobu nga def lu baax a ngi noonu. Mm-hmm. kon iqra la bismi. foofu nga yem. Mm-hmm. bind tur ki nga xam ne ba xelam da ngaa bëgg xelam neex. waaye bàyyil xel na xar mi. xam nga. bisu tabaski bi yoon la balaa ngaa ren sam xar bala ngaa ren sam xar maa ngi daan jël am ndox tiime la ko xar mi mu naan ba siggi waaw bokk na ci diine waaye mag ñaa ko indi woon naan bañ mu deyaale mar ak yooyu ok pour ñu wàññi ñii dugg kaso ñu bañ a am musibaay kaso parce que li nga ko tudd moo tax sama xel ci gis nga resu xaru tabaski waaw képp koo xam ne bañ ngaa dugg kaso mm. parce que xam nga kaso moom nattu yàlla la yàlla na ci yàlla musal te musal ci ñëpp ku ñuy déglu waxtaan ni boo ko jëlee ci bisu xar tabaski bi te bañ ko laal suuf ba tey foofu bu génnee ci xar mi rek waaw res wi res wi laa wax bu génnee fan koo daggee rek teel ñu bind ci baatu mudd xaamataan kese kase ma ngi ci suutu raxmaan buñ ko bindee lakk ko waaw dañ koy lakk sa loxo bind wala bind ko bind ko bindal jëlal biig biig bu mu doon baax ma na ci bind waaw na ci bind rek ba nga gis mbind ma lakkal ba mu ñor ku ca lekk dimbale nga ko ci kaso. Hmm? waaw. ah. mudd haamataani mudd haamataani. mudd haamataani hmm. ma ngi ci suutu Rahmaan. ñii may saan nag baatu mudd haamataani na koo ko bañ ma cee sonal. na ngeen ko laajte avant tabaski di ñëw ndax bu tabaski bu jotee damay fay samp taw ndax loolu mënu nekk. su ko defee boo ko bindee ci res yi ba mu leer nga lakk ba mu ñor njaboot gi ku ca lekk yàlla dina la musal ci ay kaso waaw loolu lan moo ko gën ah kon commissaire moo fàttali moo ñu fàttali loolu ndax bu sama xel demutoon ci commissaire. wàññi élément waaw foofu ndax ñu wàññil coono yi. da nga tax commissaire dootu def commissaire. nee ko foofu participation bi mi ngi noonu <laughs> boobu baax na ci moom. Eh, eh. yaa ngi dégg. Mhm. waaw ndax mhm. ñëwee ci làmmiñ wi. Mhm. làmmiñ wi. maanaam day faj ñàkk xorom. Hmm? waaw ni ko amul xorom. Hmm. làmmiñu xam tabaski moo ci gaaw. <laughs> Masamba Sarr ñoom ñaar kenn amul ci solo sëñ Malick ñi ma ñaar ñoo xam ne kenn amul ci solo déet moom soo ay non ñi ay ñi am nañ xorom rek damay bëgg bëgg sëñ bi gis naa dañu la gis nga di koy ngay ci xorom bu ñoree nak hmm. nga nan ñeex way bu lek laamin de hmm? waaw bis boo lekk laamin ab waxal nga doon <laughs> da nga nan ñeex rek waaw mooy <laughs> waxal nga doon ku bari wax nga doon da nga wax ba nit ñi jaaxle ay yow da nga nan ñeex mi rek daal di bàyyi hmm. nak bo boo nappee mën ko suul wala nga seet fokk waaye bu ko lek rek ëpp na lek nak waaw lolu sekkar la ci xarum tabaski ndax ba tay itam bu lek laminu xarum tebeski mu muuma Hmm? waaw ba da ngay mel waaw bugum bu waaw moo tax mbir yi mhm. il faut ngeen taxaw ab seetlu kon lu tere rek am na tax hmm. kon loolu bàyyi nañ ko xel waxuñu mu muuma de bis bu muumaa boo ko lekkee da nga am problème hmm. kon yooyu ay sew sew la gis nga gis nga ni euh, euh, euh, nga koy gor bi lii lu ko tubaab tuddee waaw tu olof la ah. mais lii lu ko tubaab tuddee am na nu mu ko tuddee. <laughs> tam tam doon ab raccord rek. waaw. léegi nag du li xam nañ ko. waaye li nekk. waaw kay. waaw loolu. loolu nag njariñam lan la. Hmm. buli xar buli xar. waaw kon ëpp naa sànni. Hmm. ñu bari daan nañ gis ñu ko daan samp ci bant. Hmm. fàtte ko fa ba mu wow ñu denc. kon jeex na. loolu ana lu muy faj mooy enzyme lay faj. gis nga enzyme fu mu fekk enzyme. Mm-hmm. léegi nag jigéen ñi moom mënoo leen a takkal aw sagar loolu. loolu dañ koy rus waaye bu la neexee. Mm-hmm. loolee nga ja nga jël ndox jaarale ko ci kaas bi rek. Mm-hmm. ndox mi wàcc. nga naan ko. xam-xam a garaaw. waaw waaw rek. <laughs> jël sab kaas jël raaw bi jaarale satala ci biir ci biir ndox mi. jeex na mu wàcc ci kaas bi mu naan. jeex na. Hmm? loolu moo gaaw ci enzyme. te enzyme ñaata nit na ma yàlla jégal lay faat. kon loolu ku am. boo ko boo ko weeree ba mu wow denceel matériel bu garaaw a ngi noonu. da ngay gis jigéen joo xam ne day dem xew ba yàgg mu dëppaat ci xew wa ngir lan enzyme gis góor goo xam ne doon fayaasi far mu mujj ko bàyyi. Hmm. ngir lan ngir enzyme. Hmm. yaa ngi dégg. Hmm. cosaan lii moo koy saafara. te lii ma lay wax nag de booy laal rek mu lay mu muy laal. buli xar buli xar. waaw. kon ëpp naa sànni te gis nga lii ma lay wax yëpp dañ ko dañ ko njëkkandi ko sànni tàkkal ko moom jàpp yàpp yi di lakk di lekk rek beneen bi topp mooy xar fi mu doon weqoo lu garaaw lañu noonu nag waaw biñ ko rendee wequ wequ boobu muy def xam nga xar saa boo ko rendee ñaare dana saw waaw ah. bu sawee da nga gis ne tànk yi er, maanaam mettitu dee rasu boobu muy def nga xam day fequ suuf si di dayu fële suuf soosu boo ko tubbee njaay mu bëgg jar njaay moo bëgg mu jar lu am solo ngi noonu lépp loo xam ne te naa jar boo ko ci xëppee rek dina jar hmm? waaw boo ko rendee yokk boobu muy yokk di fuug suuf si xam day rasu tubbal boo seetee njaay mi ñu ah, njaay mi daal lamb wis ko ca rek sa xarum tabaski wala mépp xarum tabaski. xarum tabaski moo fekkee moo fekkee baax na. <laughs> gis nga ni mu gravé. am na beneen composant bu ci nekkaat waaye boobu rek li ci des moom am na livre boo xam ne ma nga ca waaye bii moom nañ ko maye ndax moo gën a yomb jàpp. ndax damay bañ duggaat ci beneen détail bi. ñu la koy laaj laaj boo xamante bi doo ko mën a leeral. Mm-hmm. waaye bu ñu rendee xar mi rek. Mm-hmm. rasu bo muy rasu di yokku rek tubal suuf sosé amul loy tari tubal rek lay la nga bëgg mu jar rek wis ko ca jëw leen wis lu bari man nga comp rek def ca amna leneen lu ngeen ma laaju te daw den ma ci son moy mhm. way yalla waaw lu am solo la ci ci ci ci kilifa. am na tur waaye yow après yow yaay yow nga ko. waaye man foofu laa mën a yem. mbokk yi déglu loolu mooy xuuri xar noonu la tudd. waaw li tudd ci wolof waaw. waaw kon yaa ah. gis nga loolu. Mm-hmm. góor gu ko jëfandikoo doo tële. Mm. doo tële mm. yoom. Mm. diw gi dañ ko eh, takk xala nangam. doo ko dégg waaye bu mu doom bu mu tàpp mm-hmm. bu mu doon tam bu yoom. daaw nag am na ñu ko jël. woonal ma sant na ma. waaw. léegi bu yu ci xaru. xaru li de yaa ngi may fàttu suñu Fallou ndeysaan. waaw. nee nee na nee na nee na nee na waxtaan. ngir ñi ñu jëriñu. ñu lay jox lekk nga koy làq loolu jëru ko. waaw jëru ko li def ayut. Mm-hmm. kaay leen kaay leen naan kafe. bisimilah naan kafe. gis nga oh. way yalla yoyu mm-hmm. waye nak defin bi mo mo xoromu mm-hmm. ñu koy defé ñu koy defé mo xoromu ndax bar na ño xam ne dañoo seexlu loolu ñu koy defé mm-hmm. waye secret secret la tuddu waaw man nima ko xamé rek la ko waxtané waye boko fa nekké di fess suru ba day la dem karaw gi yépp mom ngay baxalaale ci 1 litre ndox ak xorom hmm? waaw baxal ko bam bam four nga nan ci kaas bu mag li dess nga sul ko jeex na amatu leneen waye nak xalé du ko nan ku mesure la koy ku am soxna borom kër daal borom ku amul soxna boo ko naanee da nga takki soxna hmm? force force da nga uti soxna baa boog di nga def lu kenn bëggul ah am ñaar yi ngay boole baxaloo la ñaar yi ngay boole baxal hmm. Massamba léegi laa question rek léegi nag am na ku naan man ndax da koy raxas ak yéeg ma ne ko ah man nag da jàngiwuma ko noonu ci téere ba téere bi daal dañ ne hmm. ne ko tapit fam fam fekk sa litre ndox baxalal dugalal baxalal def ci xorom rek bu baxé bu four nga xent ba am ci kaas nga naan ben yon tam la koy naan ci lumuy dox day tax awru day dëgër wa yalla day dëgër <laughs> day tax itam do do do yom day tax ken dula la yakal a sa awro woowu takk xalaat ci yam xalaat xeet waw aroon hmm. gis nga li ma la wax ni hmm. ñi ko essayé bari na lool nag. ndax Sénégal dañoo bëgg gaaw a weddi. waaye nag nañ xam ne du du nekkul xuuri xar mu ne. xuuri xarum tabaski la sëñ bi di wax. mu yoomut. waaw ah, kay mu yoomut. waaw kay mu yoomut. mu la ah, am solo. <laughs> waaw am njàngale nag. ak ak réew ne bokkut. waaw waaw waaw waaw. waaw. am njàngale. ak réew ne bokkut. danañu xool baatunu wax ji te bañ a xool saa wax ji. su ko defee ñu bañ koo jaawale. ñu bañ koo jaawale xuur yi mooy bul bi bul bi. lu mel ni bul. waaw ñu bañ koo jaawale ndax am na ñoo xam ne. dañuy dañuy dem dañuy dem waaw waaw dañuy dem <laughs> jël jël leneen la dagg. xanaa dofu. Hmm? xanaa dofu ñu loolu kay xanaa yow yow yow li nga wax leer na. leer na kon leer na. léegi na ngi may gis. li nga wax leer na nañ. aywa sëñ bi waaw.